asalaamaaleykum aleykoum, internet de da ak c'est un Sport 221 dañuy ak Coupe d'Afrique des Nations bi nga xamné ñu ngi deuxième journée bi la Côte d'Ivoire tay ji ñu gis na kat match nii li été nañu ndax ñaari match yi ñu football ci bésu bi lé benn victoire amagu ci ndax kan ñi nga ñoo di Maroc dañu match nul seen digganteeg RD Congo 1 bi partout ganna bi nga xamé né kat marocain yi ñu ngi doon espérer tay ji dal di jot sen ticket ngir qualifier ci li nga xamné moy 8e de finale yi waaye nag loolu dafa mujjé yaqku wala match nul lañu ñu def seen RD seen digganteeg RD Congo ñu gis na sax jogante ga dafa mujj ci ciow ci jappante ganna bi nga xamé né jeexna xex mo moo ci amoon ci digënté joueur yi wala ñu gis na nak mbir ma sax ba fi ñu waxé né nañu jeexul ndax kat supporter ñii di wa Maroc wala bok naar ñu ngi top ki nga xamanteni moy mooy bemba nek capitaine bu RD Congo ci Instagram am di ko saaga kon coow li jeexagul loo ci mën a dégg daal ci coow la mujj ba ki nga xam ne sax mooy tàggat équipe boobu di Maroc di Walid Regragui mu ngi rëccu li nga xamante ni moo jot a xew ci jogante gi te it nangu na ne kenn ci ñaari équipe bi deful lenn loo xam ne dina rafetal li nga xam ne mooy image Afrique en tout cas coow loolu ci la mujj comme ni ma leen ko waxee ñaari équipe bi kenn qualifié gu ci donte ne Maroc ñoo jiitu jamono bi nekk ci bopp classement bi am ñu lu toll ci 4 points waaye nag taxul ñu mën a qualifié RD Congo ñoom ñaari match ni lañu am 2 points lañu daldi am équipe bi ñi nga xamante ne ñoo nekk ca suuf kenn togagul waaye mën nañu wax ne kenn qualifié gul donte ne Maroc moom moo gën a jege jamono bi ngir jot tikem waaye dara sotteegul foofule beneen match bi nga xamante ni xewoon na ba tey mu ngi doxoon diggante Zambie ak ñii di waa Tanzanie mu nekkoon match boo xam ne moom itam victoire bu yàqu la ci loxo ñii di waa Tanzanie ndax ñoom ñoo njëkk a marqué ab bit ba noppi itam ñii di Zambie am li nga xamante ne mooy carton rouge seen capitaine bi nañ ko rouge voilà ci premier mi bi waaye nag ñi nga xamante ñoo di waa Tanzanie ñoom góorgóorlu wuñu dañ sàggan ba ñi nga xamante ñoo di waa Zambie daal di leen dab ki nga xamante nekk attaquant Leicester City moo daal di marqué but bi nga xam ne moo daal di jox Zambie ñu dellu siwaat ci jogante gi kon jamono bi mën nañuy wax ne ñoom itam ñu ngi dundee yaakaar amul kenn ci ñaari équipe yi koo ne jamono bi qualifié nga waaye ba tey mën nañuy wax ne itam tooguñu kon ci troisième journée bi xaj na ci la mbir moomu di leeree li leer daal mooy fi mu ne nii fii ci Afrique moom benn équipe wala ñaari équipe képp ñoo fi qualifié mooy Sénégal ak Cap Vert ba ñuy waxee ak yéen nag mën nañuy wax ne deuxième journée bi mu ngi ñëw jeex si ndax suba la yem waaye ba fii ñuy waxee ak yéen ñaari équipe yi képp ñoo qualifié muy Cap Vert ak Sénégal ku dul ñoom jamono bi yaa ngi daw ci ginnaaw ticket ngir dal di qualifié Cap moo fi joué ñaari match am ci ñaari victoire voilà am ci 6 points Sénégal naka noonu joué ñaari match moom itam dal di jël 6 points yépp gannaaw bi mu amé ñaari victoire budul ñom amul ci kenen ko xamné dal di ngay qualifier lool nekk lo xamanteni lu mata léral la fi ni nak nag mën nañu gis né équipe yi nga xamanteni ñoo ci dess bu fekkente né kenn ci ñom qualifier wul fi ak suba kon mel ni 3e journée bi dina tar loolu Sénégal nak moom ci talaata bi lay football match bu mujj diggante ma gëné amatul dara lu muy wut lu li nga xamné moy mooy première place bi mais qualifier mom dal dina koy def ba nopi kan bobu mom duñu ko bayyi ndax ki nga xamanteni mom lañuy wax euh, Adjibou Kamara nekkon ki nga xamanteni mo marqué won bit bi mayon ñi di waa Guinée seen diggante Gambie victoire moom nag dafa dal di jéggulu tey jile ci ay kàddu yu ñagas yoo xam ne daf ko yëkkati woon jëmee ko ci li nga xam ne mooy équipe nationale bu Gambie gannaaw bi ko Guinée dal di dóoree benn bal ci dara moom moo marqué woon bit xam ne mooy voilà micro taskatu xibaar yi mu dal di wax ne daal ñi nga xamante ñoo di équipe bu Gambie bi du ñu dara xamuñu dara loolu la waxoon voilà dafa waxoon ne daal ñoom dara xamuñu ko équipe boo xam ne da ngay défendre 90 minutes te loolu nag booba ñoom dóor nañu leen ba noppi ci la dal gaaral li nga xam ne mooy kàddu yooyu léegi mu ne 90 minutes ñii di waa Gambie dañ ko défendre joué wuñu dara moo tax mu ne équipe la boo xam ne dara xamuñu ko kàddu yooyu nag mu yëkkati woon voilà di wax ne tam ki nga xamante ne mooy seen entraîneur bi dafa a tëj gémmiñam bu fekkente nekkoon loo xamante ni kàddu yu ñagas la woon tey jii mel na ni maanaam yaram bi moo tàngoon mu wax li nu mel tey jii mel na ni yedd nañu ko wala boo xel mi dellu na mu dal di jéggalu voilà dal di tuub loolu nga xamante waxoon na ko muy kàddu yu ñagas yi nga xamante dafay xam ne mooy football moo leen boole woon fi mu ne jeex na voilà ñoom sax ñoo ci mujj am ndam mel na ni kay xolam sax waroon na sedd waaye daal gis nga topp na deretam ba wax loo xamante ne tey ji mu ngi koy réccu voilà loolu nag lay jégalu tey ji ndax Gambie dinañ ko ko baal am déet en bay woy na mbuus ndax la mu doon wax moom bu dee luy métti xol la métti na Gambien yi ba noppi moom kii di Ajibu Kamara kon nag mu des suñu diggante ak ñoom ndax ñoo Sénégal ñoo war a football ñu xool ba xam ndax dina wax ne Sénégal équipe la buy défendre 90 minutes wala Guinée mooy doon équipe buy défendre du kerogee ci 90 minutes loolu moom mu ngi suñ kanam dina Mohamed Salah moom xam ngeen ne dafa amoon blessure ba taxoon sax ñu wax ne li nga xam ne mooy huitième de finale yi dina ko dal di wuute même bu fekkee Égypte qualifié na ca waaye nag ki nga xam ne mooy Jurgen Klopp tey ji joxe na xibaar bu am solo mooy kii di Salah dellu na foofu la ca Liverpool voilà dafay dem foofu di nga maam di faju li nga xamante ne mooy gaañu gaañu bi li ma xam ne daal mooy ak Salah maanaam ak delloom foofu la ci li nga xam ne mooy euh, Coupe d'Afrique a nekkul loo xam ne fi mu ne nii mën a na ko confirmer li mu dal di wax daal mooy bu fekkente ne Salah wér na ba fit ba a mën a football fekk ne maam yegg euh, ñii di Égypte ñu ngay wéy di test ci li nga xamante ne mooy CAN ba maanaam loolu mooy bu fekkente ne Égypte yegg na ca final ba loolu sax la ko daal di xamle mu ne bu Égypte daal góorgóorlu ba yegg ci final ba te ki nga xamante ne mooy Salah dal di wér balaa boobu mu ne su boobaa di na confirmer ne kon amaana dina dellu ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique ba mais jamono bi ñuy wax ak yéen kon Salah moom jóge na ci li nga xamante ne mooy CAN boobule ca Liverpool lay fajoo su ko defee ñuy kañ la war a loolu ki nga xam ne mooy Jurgen Klopp bi koy tàggat ci Liverpool moo dal di gaaral léegi nag dañuy bàyyi kaan bi dal di ñëw ci li nga xamante ne mooy suñu équipe nationale jigéen ñi nga xam ne tey jii dañu doon football seen match retour seen diggante Ghana gannaaw bi leen gana fekkee fii ci réew mi dal di leen dóor 2-0 ca Thiès la woon tey ji nag ñu doon amal retour ba ca Ghana ci éliminatoire li nga xamante ni mooy coupe du monde U20 yi jigéen ñi waaye nag tey ji bañ leen fekkee foofu dañ leen làpp ba ñu nooy ndax Ghana dafa dóor Sénégal lu toll ci cinq buts à 1 muy u yu jigéen ñi kon mel na ni Sénégal moom fi mu ne nii pare na ci li nga xam ne mooy wàllum coupe du monde maanaam mënatul qualifié ci compétition boobu ndax éliminé nañu leen gana mooy équipe bi nga xam ne mooy jàll ci catégorie boobule voilà muy li nga xam ne mooy U20 ci wàllum soxna yi ki nga xamante ni mooy Djilo Bodji xam ngeen fan yële ci ginnaaw waxoon nañu leen fi nii rek marqué na ab bit bi taxoon équipe am dal di jàll ci quart de finale foofu la ca Turquie tey jii dal dinay marqué waat beneen bit bu rëy sax bit boo xam ne day fa ma ko dóoree dafa sori lool ëpp na 20 mètres voilà ba mu ko dóoree gardien bi di ko xool ba bal bi da dugg ci camp yi dara la ci mënul moom Papy Djilo Bodji looloo may sax équipe am boobu dal di am ne mooy Gaziantep nga xam ne mu ngi fay bëgg am ginnaawam ci wàllum championnat biit boobu nag mooy bit bu mu njëkk a dugal bu dee ci wàllum championnat ndax keroog ci ci coupe la dugaloon tey jii mu daal di dugal beneen bit voilà moom jamono bii nag mag la fanweeri at ak juróom am na ko waaye tey ji la gën a dëgër tey ji la gën a dox mel na ni sax dafa commencé jël forme moom kii di Papi Mason Djilobodji gannaaw loolu nag ñu wax ci championnat yi foofu la ci Europe rawatina Angleterre Liverpool tey jii dafa dal di waneeti boppam ci kanam Bournemouth dal di koy dóor lu toll ci na ni fi ne nii moom ree moom defatu ko Liverpool maanaam réewut ci li nga xam mooy bopp classement bi de Man City gi nga xam ne jamono bi mi ngi ñëw Liverpool nga koy wane ne moom bàyyiwul xel mukk ngir bàyyi li nga xamante ni voilà mooy mbir moomu la tey ji dafa dal di wane boppam bu baax a baax ñeenti bal ci dara ñeenti bal yooyu la nag mën nañu wax ne ñaari joueur ñoo ko dal dugal Darwin Nunez moo amal ab doublé Diogo Jota moom itam dal di amal ab doublé ñoom ñaar ñoo dugal li nga xamante ne mooy 4 but yooyu nga xam am na ko muy ndam lu yaatu bi di gën a dëgëral seen bopp ci li nga xamante ni mooy bopp championnat boobulee bu dee ca Espagne tey jii mën nañu wax ne ñaari équipe yi fa gën a mag ñoom it football nañu voilà ku ci nekk ci ñoom ñaar nag tey jii mel na ni dégg nga maam amoon ngay rëng-rëng waaye mujjee nga am victoire bokk na ci ñi nga xamante ne ñoo jiitu ci bopp classement bi di Real Madrid tey jii mën nañu wax ne équipe ba nekk ndadde ci championnat ba moo ko bëggoon a takkali pot muy ñii di waa Almeria Almeria nag mooy équipe ki nga xam ne mooy jolof yi tey ji sax mu dal di def match bu am solo ci équipe boobule voilà ñoom nag ñoo jiitu woon ci match boobu ndax ñoom ñoo njëkk a marqué ki ñuy wax Ramazani moo njëkk a marqué bit bi njëkk ci match bi ci première minute dañu ne prib rek ñi di Almeria dal di marqué voilà ñu di déeta waaye dem ci minute ñu dal di dugalaat beneen bit ki nga xam ne mooy Edgar Gonzalez 43e minute mu dugal bit bu rëy boo xam ne Kepa Arrizabalaga dara la ci mënut te fa mu lool 2 la ñu demee ci mi bi bi ñu ñëwee nag ki nga xamante ne mooy Ancelotti def ay coppite Real Madrid dal di wat ci match bi ndax man nañu wax ne 3 but lañu duggal ci second mi-temps bi daldi gagné li nga xamné moy jogante gogo Jude Bellingham Vinicius Junior ak ki nga xamante moy Dani Carvajal ño marqué but yi nga xamné ño may ñi di wa Real Madrid victoire lolu mo leen may sax jamono bi ñuy woy di dess ci li nga xamné moy bop classement bi ndax bu ñu ñakon tay du bax ci ñom ndax ñaari poñ kep fim ni mo dox seen digënté ki top ci ñom moy Girona Real Madrid 51 points la daldi am Girona am lu toll ci 49 points kon bu ñu ñakon tay jilé melna na li nga xamante moy voilà seen bop classement boobu meun nañu ko sax ñak ñàkk waaye nag mujj nañu sauvé ci li nga xamante ni mooy dernier minute yi ki nga xamante ni nag mooy Jude Bellingham boobu nga xamante ni wax nañu la ne buteur la ci match boobu moom sax mooy homme du match ñu gis na kat moom jamono bi voilà saison mu ngi wéy di baax ba léegi ndax kat 17 wala 18 match yu mu joué ci championnat marqué na ci li nga xamante ni mooy 14 but ak 3 passes décisives maanaam 18 match yoo xamante dal na ko joué ci La Liga 17 but mu ngi ci tànkam moom ki nga xamante ne mooy Jude Bellingham seen dëkkandoo yi nag wala boog seen rival bi gën a mag di Barcelone ñoom itam football nañu tey jii ci match bu ñu doon am seen diggante ak Real Betis match la woon boo xam ne day ñii di waa Barcelone ñoom itam amoon nañu jafe-jafe waaye gis nga mujj nañu réagir ba dal jël li nga xam ne mooy ndam li ndax kat ñii di waa Barcelone dañoo xamante ne mooy Fran Torres ak Isco ku nekk ci ñoom ñaar dal ngay wane sa bopp voilà match bi ne mooy bi partout waaye daal gis nga Xavi ak coppite yi nga xamante dal dina koy def dal dinay indi lu bari ci match bi voilà ki nga xamante mooy Joao Félix dal dinay dugg dal di marqué benn but bi nga xamante ni kii di Ferran Torres mi amaloon li nga xam ne mooy doublé moo ko paas moom Ferran Torres moomu le dal di ñëw dolliwaat ci beneen muy 4 buts à 2 kon 4 buts à 2 la di waa Barcelone dal di joo dóor ñi nga xamante ne ñoo di waa Real Betis ñu gis na daal ci minute yu mujj ñoom ci lañu réagir ñoom itam 90 e ak 92 e ci lañu ñu gagné li nga xamante ne mooy match boobule Ferran Torres nag moom mooy homme du match ndax moo marqué li nga xamante ne mooy 3 euh, buts hat-trick la amal ba noppi itam def li nga xam ne mooy passe décisif pour ki nga xamante ni voilà moom la wax Joao Félix kon moom 4 buts yëpp tànkam moo ngi ci moom ki nga xam ne voilà mooy Ferran Torres. ci match boobu la nag Barcelone dal di indi genn gone goo xamante ni fukki at ak juróom-benn la am doon ko jëloo ci axe bi ci axe central bi voilà moom ki nga xamante ni ñu ngi koy wax Po Kobarsi voilà moom titulaire la woon ci match boobu la jeexalul ko nag amaana dafa mujjee gaañu wala mu sonn lool ñu dal di koy génne en tout cas loo ci mën a déggee xale bu tuuti la fukki at ak juróom-benn képp la dal am tey ji voilà dal di ci li nga xamante ne leen suivre Sen Sports 221